xam sa démb xam xam sa démb xam sa tey xam production de Goethe Institut en collaboration avec les Archives nationales du Sénégal et Kër Leyti la maison de l'oralité et du patrimoine. àdduna yàgg na ci démb lay jóge déglu leen ma may ma nopp ma nettali leen jaar-jaaru Sénégal bu rafet bii sunu réew mii may leen ma nopp ma ànd ak ñu tukki ci jëf ju mag ju réew mi may leen ma nopp ñu dundalaat sunu xel ak sunu fàttaliku ñun doom yi fàttaliku ay doomam di góor di jigéen may leen ma nopp ñu wax ci ñi nga xam ne seen jëf rafet na ba nettali bi rafet may leen ma nopp ndax sunu taarix dafa rafet te jar a xam may leen ma nopp seen noppi xol nag laa soxla ngir ma ànd ak yéen ba ci suñ biir xolu démb may leen ma nopp ngir ñu mën a dund sunu tey may leen ma nopp ngir ñu mën a waajal sunu ëllëg ñun ñooy taarix xam sa démb xam sa tey di waxtaaneeti nag kilifa gu mag kàngam mu mag bindkat bu kenn dul fàttali léebkat bu kenn dul nettali ñu ngi waxtaanee tey kàngam bii di Birago Diop waaye ana kuy Birago Diop Birago Diop ku ko wax gone yi jàng ci daaray nasaraan ñu taril la ma bindoon mbind mu rëy ma ne ñi de demuñu ñi ngi ci ker gi di yaatu ñi de newuñu ci biir suuf mi ngi ko bindoon nag ci téereem boobu doon maanaam tudd suuf la Birago Diop mooy borom clip bu rëy bi ñu tuddee ko L'os de Morlam muy yaxub Morlam ba waaye nag moo bindoon téere bu rëy bi di le contes d'Amadou Koumba di léebi Amadou Koumba yi jóob moomu na kon mën nañoo jàpp ne tey bindkat yu mag yi ci Afrique kenn mënu leen a tudd te jàppoo turam waaye ku ne vétérinaire yu mag yi da nga tudd Birago Diop ana lu waral loolu. Birago Diop moomu mi ngi judd ci fukki fan ak ñaar ci décembre ci 1906 ci dakaaru Njaay mi ngi màggee Wakaam Wakaam ca ñay bañ Wakaam ca borom fulla ya wakaam ca borom fayda ya fa la jàngee alxuraan fa la jàngee tubaab moom Birago Diop waaye ba mu bëggee mottali am jàngam dafa dem ndar nekk ca école bii di lycée Faidherbe 1920 ca jamono yooye fekk na ko muy bind ay taalif moom Birago yàlla mayoon ko muy gone gu teel a am lu mu koy déy ginnaaw ba nga xamee ne nag mottali na am njàngam ca la dem Toulouse àggale fa ca école nationale bii nga xam ne vétérinaire yi faj mala yi fa lañ génnee 1900 29 foofa nag yàggu fa ndax am njàngam da caa def fula ak fayda mottali ko fa am doctorat 1932 Birago Diop ne nag day tàggatu ji defi stage ñu yóbbu ko ca kër gii di institut des études de médecine vétérinaire exotique d'Alfort kon 1933 ba 1934 fa la gën a tàggatoowaat ba nga xamee ne nag ma nga fa ca la tasee ak kii di Senghor bindkat bu mag booba ak kii di Aimé di doomi Martinique ak Léon Gontran Damas di doomi Guyane ca noona la àndee ak ñoom ci kuréel gii nga xam ne dafa taxawoon di dëggal der bu ñuul ginnaaw bi mu ñibbisee Sénégal doon inspecteur toogal France te mu moomoon suñu gox yi ci jamono boobu ci nooteel mu daal di dem nag ca Mali yi ñu affecté ko fa ginnaaw bi mu nekkee Ségou nag Birago Diop ñëwaat na Burkina Faso te ñu tuddee woon ko Haute Volta waaye nag liggéey na it ca Mauritanie yooye yëpp vétérinaire la woon waaye dafa nekkoon kilifa nekk inspecteur li ko ñoroon nag mooy aada ak cosaan moo tax fépp fu mas a dem da dem ci géwal yi ak mag ñi am xam-xam dëkk leen noppam ñu koy nettali muy bind mbind mooma nag moo indi téereem bu njëkk bi nga xam ne mooy léebi Amadou Kumba mi ngi ko bind nag ñu génnee ko ci atum 1947 booba tubaab baa ngi fi tubaab bi fi naan bi nekk du dara tubaab bi nekk naan la sa cosaan du dara tubaab bi def la vétérinaire jox la cër di la fay nga am fitu bind sa léebi maam loola mooy fit wi mu amoon ne tubaab bi man sama maam ay léebam xam a ci ne te day defar am njàngale ci ne 1947 mu génnee ko ca biir téere booba am na lépp moo xam ne mu ngi tudd sarsan sarsan boo ko déggee baatu tubaab bu yàq muy sergent muy koo xam ne daa demoon guerre ñëw weddi xam bi maamam muy ci lépp boo xam ne ballet africain yii nga xam ne Keita Fodé Ba moo leen sosoon ci 1955 jël nañ ko tëgg ko am po waaye nag am na koo xam ne day defari film cinéma tuddoon Momar Thiam bokk ci bàyyi cinéma wu Sénégal 1963 la ko jëloon caméraam filmer ko waaye yemul ca loola am na ci beneen léeb bu tudd Sadaga boo xam ne moom it defoon na ko film mu génneewaat ay léeb yu Amadou Koumba tuddee ko léebi Amadou Koumba yu bees yi présence africaine bu Alioune bu ko génne 1958 booba tubaab baa ngi fi ba léegi waaye mu wéy ne Léopold Sédar Senghor bindal ma xëtu ubbi bi xëtu ubbi boobu nag Senghor wax ca lu rëy ne lépp wu ne wu ngeen gis rabu àll wum tudd nit la wax ak jikkoom ginnaaw loola nag Birago Diop bindaat ne beneen téeréb taalif mu tuddee ko l'heure et lueur maanaam yi naxe ak yi lerxet boo koy jukki da nga cay génnee taalif bu mag téere booba nag nañ ci génne suuf noyyi googu nit di noyyi ca la waxoon ne ñi dee deewuñu 1960 at mi Sénégal di jot boppam yamut foofa ñetti at lañ ca teg mu génnee lépp ak laawaan yi ca la amee woon nag raaye bu mag ba di grand prix littéraire d' Afrique noire 1964 waaye Los de Morlam Los de Morlam mooy lépp boobu di fàttali ne moor dafa yorub yax yax ba jógee ci ab nar nar booba di saamu nag mor musa mi bokkaloon lal ñëw moor ne Moussa du ñam ci yax booba ba mu jaraloon ko mu dee deelu ba nu suul ko théâtre national Daniel Sorano 1965 bañ ko ubbee ca la jël loolu tëgg ko muy pièce bu mag bu rëy boo xam ne Peter Brook sax tëggkatu théâtre bu mag booba ca France defoon na ko muy lu rëy ca théâtre boobu ñu tuddee Bouffes du Nord ca Paris ana lum ci jublu woon mooy wane ne suñu léebi yi nanguwuñ ko siis nanguwuñ ko bon nanguwuñ koy dëddu sa bokk mbaar te loola njàngale mu rëy la woon ci wane ne yéen tubaab yi jamono bii ngeen di xëccoo xiiroo ko mbaaloo maa ngi leen di wan ne ñun suñu aada mooy bokk waaye ci biir liggéeyam dañu jàpp ne Birago Diop nekkoon na ku amoon cër ci àdduna ndax jiite na service élevage yu Sénégal nekkoon directeur ba ca gannaaw ga def nañ ko ambassadeur Sénégal Tunis 1961 mu toog fa ñetti at ba mu fa jógee la ñipp si Dakar nag ne kenn dootuma yilif ca la ubbi clinique boppam waaye liggéey booba da ko boole woon ak li nga xam ne mooy dundal xolam maanaam mbind ak nafar loolu moom moo tax sax théâtre Sorano ba nu bëggee ku jiite kiy saytu téere yi nga xam ne moom lañu war a jël def ko ay théâtre moom moo jiite kuréel googa di comité de lecture théâtre national Daniel Sorano waaye yamul foofu bi nga xam ne bindkatu senegal yi bëgg nañoo def mbootaay mbootaay googa ca ña sos la bokk te mooy ka njëkk jiite kon mën nañ ne moo njëkk a jiite kuréelu bindkatu Sénégal yi ca 1965 Birago Diop yamut foofa lii nga xam ne mooy kuréel gi saytu ak ak yelleefu fentkat yi ñu tuddee ko bureau sénégalais des droits d'auteur BSDA biñ ko sampee 1972 moom moo jiite woon kuréel gu mag ga di conseil d'administration bi kon nit ngi nii koo xam ne jàngoon na jël am njàngam jariñoo ko waaye jariñee na ci bokk na ko ak i mbokkam kii mooy Birago Diop bi nga xamee na nag jël na retraitam nekkatul kuy faj ak saytu mbir vétérinaire 1979 dafa toog nag ne bind sama jaar-jaar ak samay pàttaliku def ko nag juróomi téere bu njëkk ba ci tubaab tudd la plume raboutée ba ca topp tudd à rebrousse-temps ak à rebrousse-jean ba ca topp tudd au temps de bi ko tëj nag di Élysée's pour me dire kon Birago Diop ba muy dem wàcc na fi nettali ngir ndono yi tey jii nag mën nañ ne ba bi muy génn àdduna ñaar fukki fani novembre ak juróom ci atum moom Birago Diop musta bañ a bind këram gu mag googu nag nekk ca Point E te ñu tuddee ko kër Birago fala boroom xamxam yi daan daje fala xeltukat yi daan daje fala kàngam yi daan daje moo tax ba mu génnee àdduna nguuru senegal da ko jënd ba mu ko jëndee da ko may association bii nga xam ne moo ko njëkk a jiite muy kuréelu bindkati Sénégal yi ba tey jii mooy seenu dalukaay ba tey jii mooy seenu barab bu ñuy fësalee seenu mbind ak seeni gan Birago Diop dund bu am solo Birago Diop gëstukatu cosaan Birago Diop maamu léppkat yi nga xam ne ñooy léppkat yu ren yi ak léppkat yi ànd ak jamono Birago jóob gàcce ngaalaama ku la joxoñ joxoñ borom xam-xam ku la joxoñ joxoñ vétérinaire ku la joxoñ joxoñ doomu Afrique bu wàccoo ak Afrique gàcce ngaalaama li la war def nga ko moo tax xam sa démb xam sa tey di la fàttaliku Birago Diop doomu Afrique bu tedd bi. xam sa démb sa tey di waxtaan wu leen Goethe Institut may. ànd ci ak archives national du Sénégal ak it Kër Leyti maison de l'oralité et du patrimoine direction artistique ak présentation Massamba Gueye assistant Abou Soumaré régie technique la factorie bu Ousmane Faye ci xarala gi Roland Sagna coordonnatrice Bouye Fall Goethe Institut